da ngay téye rek xam nga boo waaxoo mën a kërëg nga waaxuwaat mën a kërëg nga wax waaxu mën a kërëg kat kat. waaw <laughs> mën na man mi. sama loolu mënu cee ñaar. <laughs> mu ngi may yëngal laaj boobu dafa diis mu ngi may yëngal <laughs> mu ngi may yëngal Mbour. waaw ma ne mu ngi may yëngal. ah ma ne c'est normal xam nga. waaw ma laajte sa ay kooru jàmbur. yaa ngi koy yàq nag yaa ngi koy yàq Mbour kañ nga ko commencé def. ah man kay yàgg naa ko def avant koor gi moo tax koor gi tàmbali aussi ma continué ko. Dada foo dëkk. man maa ngi dëkk front de terre. front de terre ban front de terre. <laughs> zone de captage. zone de captage wuy ma. waaw wax dëgg yàlla wax nga fi lu baax te neex. mais képp ku sant mboob wari nga. ndax yow ku ëppal nga. doo ko takk nga ne ma da nga koy takk ci koor yàgg nga koo takk man mi di wax ak yow tàggoog naa sama sago yàgg na dama fi nekk ni waaye dee na ko xam na xam na la dëgg yaa nga njool ca kaw. macha allah ñuul nag ñuul ñuul jigéen ji ñuul jigéen ji ñuul kukku la <laughs> mbokk yi seytaane dafay dañ ko tënk ci koor gi munul jàpp kenn lu waaye def sa bakkan la ko defee su ko defee moom comme nga xam ne mooy dadaa mbuub dëkk ca front de terre zone de captage ñoom ñëpp war nañu ak képp ku sant mbuub war na ko kon ñi nga xam ne ñoo sant mbuub nañu dem diggaale ko ki nga xam ne moom mooy dadaa mbokk yi nga xam ne yéen ñu seetaan ba nga xamee ne nag alxatami daal di nay kontaan ñu daal di may yeewi ñoom ñëpp jaaxle ñu naan ma waaw Abu Bilal ñoom Sidi Lamine naan ma deret bi génn sa làmmiñ bi ak bii génn sa bi mbaa doo anémie ana sa deret man leen tomate loqati la tomate loqati <laughs> ñu ne nan la nan la mën a nekkee noonu ma ne biñ may dóor am na ku nekk ci suuf alo allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waa imam na nga def. waa ku al al ustaas la. waaw oustaz na nga def. Abou Bilal. na def oustaz. foo ñu woowee. Euh, man nag maa ngi wootee Grand Dakar. Grand Dakar noo tudd. maa ngi tudd Mati Gueye. waaw. Mati Gueye Grand Dakar ñoo ba waa Sine Sine. ah yow da xam nga ma na def. ah xam naa la bu baax nag. waaye man daal dafa am lu ma bëggoon tawat. loo tawat lan. Euh, lu ma bëggoon tawat daal ci koor gi loo xam ne daf may arrivé daal. waaw lu mel nan man daal fi mu nekk nii sax maa ngi lox bu lox bu lox mbaa jàmm la sama dënn bi mi ngi palpité daal déedéet tudd ma neel Abou Bilal tudd ma ci dënn bi xoolal parce que li ma dal waaw dafa am li ma dal mais ci yow la ma dal ci man ma waaw man daal bu ma wooree ni ma wooree nii waaw nii dama woor de waaye bu ma lay seetaan mhm. booy wax noonu waaw sa tuñ gi daal sa lèvre damay am envie ne la dana <laughs> ma ne. Hmm. xam nga eh, noo tudd nga ne. man Mati Gueye laa tudd. Mati Gueye waaw joxoon sa numéro ci suuf ba pare balaa ma lay tontu nga jox ko nga jox ko ci suuf dégg nga. waaw dinaa ko joxe ci suuf. Ah, Mati. waaw. nga ne daal man su wax ni may waxe di mel as lèvre yi daal. ah woo ma waaw est-ce que xool nga ban heure ma jot. waaye man xaw ma lan la fi nekk nii maa ngi lox moo tax ma ne est-ce que loolu est-ce que yàq na sama koor wala yàqu ko. bu dee ci man la. waaw bu dee ci man rek tey man rek maa la tax a jóg man kese. waaw wax dëgg yàlla waxuma la. waaye de fan la rafetlu. ah man de loolu man jaa kon de loolu kontaan naa ci bég naa ci. waaw wuyu ma. waaw noo man de njool. waaw. ay Coca Cola. waaw. ba pare nag maa ngi ci diggante xees ak ñuul maanaam café au noonu nga mel. waaw. ah waaw yow kese dëkk la sama regard bu ma la xoolee damay mel ne kuy nelaw te nelawuma. lii cofeel la lii mbëggeel la dëgg nag lii nañu wax mbëggeel wuy ma xam nga lay def. waaw da nga yëkkati sa xol jox ma ko suukaru koor. jox naa la ko jox naa la lépp. yëkkati sa xol jox ma ko suukaru koor. sama xol ak sama xalaat ak sama lépp laa la jox. waaw bu ñu waree nag ma jël ko. d'accord bu ñu waree waaw gis nga bu fekkee ne dag may gisati may wax loolu di la dal. waaw da ngay tufle ci suuf naan Abu Bilal da nga may tudd rek naan. Abu Bilal Abu Bilal waaw. su ko defee dinaa <laughs> seytaane moo ci laxasu rek. waaye du du ah, dara. jaaxal na ma sonal na ma yow moom loolu du dara <laughs> cofel la. nekk nii ni may wax ak yow sax sama baat bi mi ngi lox. ah. ni may wax ak yow sax sama baat <laughs> ma ne ku ne sa bopp nga xam. ah ma sa bopp nga xam. su ko defee. ñu ngi am mbégte ak contentement bu baax yooyu day am nag ñu ñi des fois ñuy daanu leer da ngay waaraate ba si yàgg am am na ku nekk ligne bi allo allo allo amul ku nekk ci ligne bi allo bu fekkee ne amul ku nekk ci ligne ñu continuer di ci nuyu bu baax ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu ay taalibe ku ci mel ne am ne ne ñu koy nuyu ak ki nga xam ne moom mooy ndekki ak soxnaam ñoo ngi ko maam jaara du nuyu tamit Cheikhou ñoom Ibou Ndawal ñoom Aziz Mbaye Aziz Mbaye nekk ci Liberté 5 Khadim mbay ca Italie Malick Fall ak Khadim Ngaye ak ñoom euh, Thiane Diop de la part de Thierno mbay nekk ca Golf Sud nuyu nañ ki nga xam ne moom mooy Assou Ndiaye borom ceeb bu neex bi ak ki nga xam ne moom mooy Bouya Diouf chéri Fat Ba Fat Ba mooy yaayu Mouhamed nee na ñoom ñu ngi ñëpp ay euh, ñu ngi foofu ca Ouest Foire wax dëgg yàlla euh, day Assou Ndiaye chéri Sidi borom ma teg ndog bu rafet bu jekk bi ñu koy nuyu baax am na ko ne ci ligne bi allo allo kenn nekkul ci ligne bi su ko defee ñu eggale li nga xam ne mooy alxatami fa mu yemoon ba ñu jugee foofu nag ñu war a dem ñu ne nag léegi dañuy dem nag ci àll bi nga xam ne mooy àll bi gën a naat ci àll yi nga xam ne ñoo nekk foofu ci xurga ñuy dox di dox di dox di dox jékki-jékki ñett jinne daa dee taxaw yenn jinne boo xam ne ku mu jinne bi ci boppam boo ko gisee bu la xoolee rek ba tàllal la loxo dangay nekk ndox bu ne la nekkal ndox nga nekk ndox bu ne la nekkal xeer nga nekk xeer ñu daal di jékki-jékki rek tasanteeg ñetti jinne ñu taxaw alxatami na ay ca tari leen li ngeen war a tari pour jinne bañ leen a jommal ñu daal di tiit ñun ñëpp ñu fàtte ma jékki-jékki daal gis benn jinne bi laal Sidi Lamine mu nekk xeer mu laal Moustapha Gueye mu nekk ndox mu laal oustaz Alioune mu daal nekk xob mu laal Taïb soose mu daal nekk suuf mu laal oustaz Mor mu nekk bale man mu laal ma ma nekk bal <laughs> am naa appel allo allo allo. waaw Abdoulaye. waaw. waaw Abdoulaye siyaare naa la. waaye nangu nañ ziar bu wér waaye sëñ bi kookal la. ah. ma ne kookal la. man la Pape Serre. ah Pape Serre kooku sama taalibi la Pape Serre na def. waaw Abou Bilal siyaare naa la. yaa ngi en direct ci Télé Futur Média. ñëpp ma ne la démb. ba nga ne na ñëpp wari wari nan da ngeen a wari. barke yent yàlla Mamadou ma ne la yaay suñu sëriñ da loo def la. ah man daal waaw kii nag dafa xër sama taalibe la Pape Serre Mbaye Ndeye ma ne. ci Abou Bilal. waaw. barke yent yàlla Mamadou ba nga ne wari leen wari leen ñii ñaa ngi nii di commencé di wa waajal wasiba. waaw ma ne. waaw ànd leen ak dal gis nga ndaw si diggoon démb. waaw dina la ànd ak dal ba wax wax ji ma ne wari leen waaw dinañ ànd ak dal naa ànd ak ak moom ma ne. waaw Pape Serre. waaw est que am nga laaj booy laaj ki nga xam ne mooy sa jëwriñ sa sëriñ di El Hadj Abou Bilal. man daal sama jëwriñ lu ma koy laaj. waaw. mooy moom. ni ñi la ñuy wax naan noo jëwri nag nii ak nii nan wàññi wax ji parce que xam ni kilifa la ñuy waxal. <laughs> jërëjëf jërëjëf. waaw waaw wax ji li wax dama bëgg ñuy ànd ak tey di wax ak tey parce que kat yaay suñu sëriñ te loo wax lu nu wax dañuy tàng suñu xol fi mu ne nii. Pape Serre. waaw dañ ma war a ormal dañ ma war a ormal. waaw loolu nag laay wax nanu warmaal Abou Bilal suñu sëriñ dañ koy warmaal. jërëjëf jërëjëf Mbaye. jërëjëf jërëjëf suma sëriñ. Abou Bilal waaw fu xaalis bi toll daayira bi. daayira bi daal ñoo ngi ci un million cinq cent. ana euh, un million ñaata. un million cinq cent lañ toll fi mu nii. ci xaalis. waaw. bu xaalis bi fanaanee sa kër wari nga. ba pare di bëgg di la ko jébbal nag. dama waaw bu xaalis bi fanaanee sa kër wari nga. am bilal mu wax loolu waay. boo ko defee ma folli la génn ci daara bi na xaalis bi ñëw léegi. kon dina ñëw incha allah. na ñëw léegi jërëjëf Mbaye. jërëjëf am bilal jërëjëf. jërëjëf gis nga taalibe yi dañuy ànd ak leer des fois dañuy aalu waaye nag da nga leen di napp boo leen nappul dañuy jël xaalis bi caay-caayee ko ndax des fois dañu naan sëriñ bi ñu nag moom a yem kon mbokk yi ñuy am mbégte ak contentement bu mag di nuyu tamit ay taalibe yu jigéen ku ci mel ne Fat Ba nekk ca quartier Ngaleen ca Ndar Maratu Fall ca quartier Ngaleen Fat Cissé Venus ay Aïda Sarr kase Ndeye Binta sekk Awa Dia Chéri Mbacké Fat Sall Adja Binta Seck ca Thiès Ya Fati Diagne Mariam Saré Assou Thiam war a ñu naan ko madame Kassé ca HLM Grand Yoff Papi Seck Chéri Mbacké Seck Mohamed Kassé Alimatou Kassé ak Kani Gueye Papa Xaar nekk ca Kaolack ñoom ñëpp ñu ngi ànd ak ñun di ci am mbégte ni Ablaye Ndiaye allo amul ku nekk ci ligne bi ba xamee ne jinne yi tase nañ ñun daa damay làmb ma nekk bal Sidi Lamine nekk xeer Alaaji Moustapha Gueye nekk ndox ñu daa dee jékki-jékki ma gis xeer bi di yëngu man bi nga xam ne maa nekkoon bal ma daa dee bondé ba ma bondé jekki jékki am benn xale naar bu romb maa ngi dégg ñu naan ko zéro mu naan beneen xarit bi naan ko mazalina aliwul kaale zina bu de kaale ñu fu bëli xale ba naan ko zallaka wuna jël xeer ba nekkati Sidi Lamine la yor daal di koy sànni ci ndox mi fekk Moustapha Guèye la sànni <laughs> ndox ma ne pëcc sii deg Moustapha Guèye tase seen dënn yi ne dënante boobu maa ngi dégg ayya aya ayya xale naar yaa ngi naan xeer yi maa xale bi nga xam ne moo foroon bi nga xam ne maa nekkoon bal bi dafa téye bal bi loolu tax koll Abu Bilal fa la commencé histoire Abu Bilal ci koll ba fa commencé xale bi téye bi daal di koy tël bi mu ko tëlee ma dégg ma naan ko wàcce ma mu naan xaritu naar bi wa zayli kaane wàcce ma alaka ziw naa am na ku ne ci ligne bi allo allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. ziar Oustaz. waa ko kan la. ziar naa la. waaye nangu nañ ziar bi. man la Nafi. Nafi. waaw. ah Nafi Nafi foo mm. foo dëkk. mais Sina lañ may woowee Sina. foo may woowee. ma ni wante Sina lañ may woowee. ah Fina lañ lay woowee. waaw. Ah, Nafi ah, ñu naan ko Fina. waaw Nafi ñu naan ko Fina. waaw foo dëkk. maa ngi dëkk HLM. HLM. Fina nan Ndiaye wala Diop wala. Dia fépp Fina rek Fina wala nga ni Fine. ah waaw ma bàyyi ko ci finaa man ke dama ko tudd fi. ah waaw waaw yooyu yàlla baax na léegi loo doon laaj. waaw léegi daal man li ñu doon laaj lenn la. waaw. man damaa luwee néeg ak sama benn xarit. waaw luwee waaye xarit bu jigéen la de. da nga luwee néeg. waaw dama luwee néeg ak sama benn copine. Mhm. léegi sama copine bi. Uh-huh. ay kii lay xëddee. nambe ak nen. Uh-huh. nambe ak nenu baxal lay xëddee. ah waaw waaw. te buy xëdd daf may forcer ne il faut ma mos ci daal ci xëddam bi. il faut nga ñam ci. waaw te man damay woor. waaw waaw. léegi nag ba mu si ñamee démb daal dafa mel ni daal nambeem bi dafa xaw a yàqu. tey nag mu sonal ma lool. Ah. waaye ndox rek laa naan may laaj ndax am naa koor. lekkuma nag ndox rek laa naan. Ah, fan la la solo sonalee maanaam da ngay wañaaru wala da ngay ngelawal. ah ngelawal bee ci ëpp de dinaa wañaaru waaye ngelawal bi daal dafa bëri. foo koy ngelawalee ci classe dangay jàng wala da jaay. déedéet. looy def. ci biir ci biir néeg bi comme dañoo woor ñu génn dañuy tëdd noonu léegi nag affaire bi daal aw ma ventilateur tamit ak tàngaay bi. ngelawal bi dafay. mbaa fenêtre bi yaatu na fenêtre bi. Ah? fenêtre néeg bi yaatu na. fenêtre bi dafa dafa jéllu ak ci diggu kër gi te xam nga bu ma ko ubbee dëkkandoo yeeg yooyu. ilaha illallah yéen ñaar ñëpp nen ak ak ñebbe. ak nambe ak nambe amu leen amul ventilo amul dara néeg bi tàng. Mhm. te man mënu ma ko bañal lekk. Mhm. su ma ko lekkul du ma am lu ma xëbbee. Mhm. yow nga ne la mën naa xam li ngay liggéey wala. ah lan ngay liggéey. man. ay liggéey tapa taapa yooyu rek. ah da ngay taapa taapa. waaw taapa taapa. moo taxit. naam business daal tapa taapa daal. waaw taapa taapa boobu nag. Hmm. taapa taapa boobu. Hmm. ba ngelawal di génn di taapa taapa ci ñi nga xam ne ñu nekk ci kër ga xam nga yéen da ngeen fa luwee juuxu ci kër ga. waaw dañuy luwee. waaw seen koor bu yàqu sax mun na yem ci yéen ñaar mais yéen ngelawal gi ngeen di ngelawal ba waa kër ga di ko ji xale ya. wala ñu ah. yaakaar ne mbalit bi la wala ñu yaakaar ne waa mairie de Dakar ñoo defa seen liggéey ndax mbalit ba jaar fekk yéen ñaar yéen a unnal kër gi def ko ba mu xase xunn ay yaa oustaz amul yaa oustaz nen ay oustaz dama ne nen ak nen noo koy mën a boole ñebbe ah waaye na moo gën a diis ma ne noo koy boole ñebbe nen ak ñebbe daa diis journée bi yëpp doo xiif waaw moo tax mu diisee si sa suuf nag ah ma ne moo tax mu diisee si sa suuf yoo koy yow nee nga fi naa nga tudd waa kon ay ngelaw yu fiin la sax ñu mën a wax waaye dootul du doon ay ngelaw yu fiin ndax nen taay fin la su ma doon sax si la ngelawali di gën a kii mais damaa taay fin ma ne waaw ba fi ngay wax ak man mu ngi may xeeñ génnal studio bi wari nga fii kat dara xeeñu fi ma ne wari nga ay oustaz wari nga jàpp ci oustaz la laa ci jàppe dama xam fu ñu koy téye ba ñu koy jàppe ah jéem ma rek booleeg benn docteur bu ma mën a faj ah, kon yow dafa yàgg ci yow ah, ci koor gi ba léegi Ah. <laughs> Fina. Fina Fina waaw ma ne. waaw. yow daal xam nga lan moo la war. Ah. sa xarit bi nu mu tudd. sama xarit bi Ama Diagne la tudd. Ama. Ama Diagne. ah jigéen la. waa jigéen la. yéen ñaar yéenay fanaan. waaw. yéen ana ana seen waa kër dëkku leen xanaa ana ana seen waa kër. suñu waa kër ñu ngi fi. da ngeen a ber seen néegu bopp rek. waa am ngeen jëkkër am na liggéey dama ne ngeen jëkkër. amuñu jëkkër. leen waxaale. amuñu dara dañuy taapa taapa suñu liggéey bi taapa la daal. boo leen di nelaw ibbi leen seen bunt damay ragal ñu xëy rek gis leen geen dee. i. waaw. dee. waaw parce que ñaari nit bu dóoree nga dóor ko mu dóor la door ko bu yàggee retour de base lay doon ko ko ci nooyi rek nooyi waat ko jox ko moromam da ngeen rek ne wow kongo ma ne. fina wari ngeen waaye dindal ma kii waay wari mbokk yi mbokk ñu ci am mbégte bu rëy di nuyu bu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan ci mel ne Mansour Diop ak soxnaam ñaa ngi ko Fatou Sey nday Aminta Diop ñu koy nuyu ak Fama Diop ak bébé Fatou bébé maman Moustapha Diop Seynabou Diop ñoom ñëpp Mansour Diop ak Fatou Sey ngi leen di nuyu ñuy nuyu ki nga xam ne suñu taalibe la ñu naan ko Kiya Kiya ak Ousseynou ñu ngi foofu Kiya nag ab jéeg la ko euh, jigéen la boo xam ne dafay def ci affaire massage kooku dinañ ci ñëw ci laaj. ci weeru koor ndax maase ci weeru koor baax na war a baaxul ñuy nuyu Ndey Siis nekk ca Mbaaw Rama Seck Abi Seck Ramatulaay nekk ca Zak Mbaaw ñoom ñëpp ñu ngi bàyyi xel ci émission El Hadji Abou Bilal Mansour Diop nuyu nañ ko bu baax kon mbok yi nga xam ne yéen ñuy seetaan